Sénégal ma ne xaar bi baab te man leen di nuyu like suma rew um, ras mu doon mu génn àddina fan yële passé ko jaare uh, fansami ak bi yëpp mm-hmm. um, ndaanaan la woon uh, waaye nag fu um, génn na àddina lim gën a soxla mooy ñaan comme di kontaan tamit si kontaan naa si yow keroog loolu ko nice na trop definitely loolu uh, di sa wala képp ak rek xam petroit la xam nga mu ngay def lu baax ci dëkk bi you know suñ ko ñaké xam nga foog ñu xat remember mhm, gay iya, mhm, mhm. wa du dëgg waaw suñ liggéey liñ doon def rek i eh, boy raas comme nima ko waxé rek nanan la wonté foog ñu defal ko lolu waaw léegi lu ñoy def rek dañu dem ak benen break way bala break bi ca ya. bo bëgg rek nga won nit yi numba yi yi eh, gars yi war call pour guest kan moy eh, tay star bi ci bir programme bi dal waaw tay nak comme nima ko waxé rek star line la te am nañ fi star mhm. ku war a ñëw toog fii ñu waxtaana moom um, pour call nag 4373 mhm. uh, la 910 mhm. wala 4375 um, 905 ngeen ges wax artiste bi kan la góor la ah, ah. góor la gars yi ne góor la ah, góor la um, xariti jigéen ñi la <laughs> maa ngi wax lu bari waaye baaxuma lu uppa ak ah, noppi naa <laughs> ay ca balaa ñu jël call bi rek ah, dañu dem ak benen break ah, ok suñu fess vidéo bi ah, suñu delu ci rek ñu dara jël call ci sun Sunland Music. Turning up, turning up. If it, if it, be you alive. my today and tomorrow. Baby, let me take you home. Here I your around. Just if you keep it going me all night long. You turn nigga talks in my head. Of all the things you did and you said. But like you carry on my own. What the one you didn't come home. You have something playing on your mind. How could you be so very unkind? Never knew when did I find Yet there's something I did so wrong You remind me of those loving days When we used to have a meeting of mine Rubbing your fingers in my ear Saying things in my ears that I wanna Only the baby And I'll be Chemist, you're giving you all these love that I could provide, baby. Nowhere the stands I could feel, living my life without you. You provide me with this energy, singing a melody. You are my love, it's not like. Give magnificent, singing all the time, God, you are mine. my past, my today and tomorrow. Baby, let me take you home and rock your bones. Cause if you keep me going, me all night long, you are my happy hour. My past, my today and tomorrow. Baby, let me take you home and rock your stoop, stoop, stoop, sweet, sweet baby. Listen. Find another soul to blame. Let no one close to your burning flames. Please stop it standing that isn't you. And keep on doing what lions do. Now you let me be all alone. Yes, in my hands I could reach for my phone. I never knew when indeed find fire. There's something I did very wrong. You were my happy hour. My past, my today and tomorrow. Baby, let me take you home and rock your world. There's a few keeping going in your night You were my happy hour. My past, my today and tomorrow. Baby, let me take you home. me of the school loving days Where things were nice and the same She'd roll rolling her fingers in my hair Saying things in my ears that I won't Telling me how much she could never leave me for a dime And never go on alibi Stay beside me, true love is so divine And stop really acting unkind, you are mine us about today and tomorrow. Baby, let me take you home and rock your bones. But if you keep me going, me all night long, you are my happy hour. My past, my today and tomorrow. Baby, let me take you home and rock your world. Yaucha uh, eh, happy hour ko mi bu <laughs> oh. hmm? koo xam ne rek eh, mm-hmm. fi mu nekk di ñun ñooy sa happy hour mm-hmm. eh, ñii la ko jaajëfal bu baax ma tam maa ko may sama happy hour hmm, la do you need to ah, star bi yow Iba xaaral ma jaarale say <laughs> affaire sun star bi mm-hmm. star la waaye number is 4373910 da uh, ngeen war <laughs> yaa ngi rey. nga ne numéro bi waay. 437. waay 5. 905. mu ngi naan call 905 maa ngi yàkkamti wax ji Iboy. star bi. la. dafa like fi jigéen. astafurlah xama rephrase. xarit yi jigéen ñi la. xarit yaay la. really. Ya. xarit yaay minister. ba wax rek nga ne dafa am kola bu dëgg dafa am kola bu nekk si euh, lifin bi bro euh, allo euh, fa mel ni kola bi ñëwangut waaye ca comme ni ma ko doon waxee rek mhm, kon bu dañ am kola am na kola bu dëgg yes hello hello hello aha uh-huh. na nga def sant yàlla waaw ma ngi jaajëfal seen programme bi thank you loolu naa def rafet na trop ni na trop thank you te ges bi si xawas yi maa ngi bëgg a ges ma seet kan la ba xam yow na nga tudd ak fooy collé. Eh, maa ngi tudd Doudou di collé Ibo Town. ok. ok guest bi Nigel Martin Luther King. ok. ok. waaw kooku ngeen war a am tey Faso. ok ok ok Doudou kontaan nañu te du. ok thank you very much. thank you for calling. yaa ngi dugg. ok. am nga suñ ne xariti jigéen yi rek ñu bëri xam na seen xel bi si moom la lay dem <laughs> déet ah ah, ah déet moom kenn nekk xarit si jigéen ñi kat moom kenn nekk xarit si jigéen ñi ok njoolut xeesut mhm. guddut dafa gaata mhm. dafa ndoon dañu am beneen si line bi